Nous yi nga xamni pour signer contrat de travail à durée déterminée pour les at ci entreprise grâce à la convention nationale état employeur convention nationale état employeur un mécanisme bu fi la mais président de la République a décidé ci biir xeyu ndaw ñi parce que ben milliard sont ci daan def na ci état daan def par président daf ko yobbu ba milliards ak daaw bi mu ko décidé ba léegi lu toll ci fukki junni ak ñaari junni xale am nañ ci liggéey tey nag ñu daje fii pour signer encore ay contrat de travail à durée déterminée pour ay xale ci fanweeri entreprise ak ñett fanweeri entreprise ak ñett tax na tey junni ak ñaar fukk ak ñetti xale am liggéey grâce à la convention état employeur kon boog maa ngi féliciter xale yooyu nga xamni goor comme jigéen nga xamni ni yéen signé mais féliciter aussi patronat bi entreprise parce que comprendre ngeen que né bi président yëkkatee xëyu ndaw ñi ba légui japp ngeen ci duggal ci sen loxo parce que bu yàgg convention bi stage rek la doon jox ñaari wër ñetti wër ñu bàyyi la nga dem tay nak convention bi gannaaw bu ko patronat bi nango dina permettre ñu signer le contrat de travail à durée déterminée ñaari at nga liggéey sa entreprise dila fay état di fay genn wal gi entreprise dougal genn wal lool nak japp na né ñi ngi koy santé président de la république parce que mom mi nga xam ne jël enveloppe bi jëlee ko milliards yóbbu ko ba fukki milliards ak juroom motax li ñi def tay ñu mën ko def kon bok gàcce ngaalama yeen xalé yi mais félicitations aussi ndaw ñi ma bëggoon jaajëfal aussi directeur de l'emploi maître d'œuvre bi nga xam ne moo organisé lii ci taxawaay bi mais ci ñaari mbir d' abord ma dégg fi entreprise yoo xam ne nañ ci yeneen région yu dul Dakar ñu xam ne loolu lu ñor lu soxal président la équité territoriale ñu am yeneen entreprise yu nekk ci yeneen dëkk bénéficier wu ci convention mais équité sociale aussi parce que ma gis ñoo xam ne nii suñu borom moo dogal ñu am laago ñu bokk ci convention bi bu mën a liggéey loolu lu ma lu lu lu tooy sama xol la te lu soxal président la république parce que moom moo wax un Sénégal de tous un Sénégal pour tous kon boog li ñu des rek mooy xale yi ngeen xam ne liggéey dafa mas a soxal président de la république ba mu ñëwee ci bokk nguur gi ba léegi saa su ne muy teg ay kuréel ay ay mécanismes yoo xam day tax ndaw ñi am métier mun a am liggéey te convention bi ci la bokk na ngeen ko fonk na ngeen ko jàpp parce que su ngeen ci amee liggéey di ngeen ci am lu ngeen suturloo mais suturlu ci ci seen njaboot mais contribuer ci seen développement dëkk loolu nag état li mu mën mooy teg mécanisme yi teg kuréel yi ànd ci ak patronat jox leen liggéey di ci des nag yéen a koy téyel seen bopp yéen a koy fonkal seen bopp kon boog maa ngi leen ci ñaax bu baax a baax a baax di félicité entreprise yi ma fi dégg yépp bëggoon rek jeexal ci madame Ndiaye wax fi léegi ci ñi nga xam ne nii suñu borom moo dogaloon caabi féete leen gannaaw te ci suñu ministère aussi ñu leen di fekk ci fi ñu nekk ci prison yi di leen jàngal métier jàpp naa ni monsieur le directeur mun nañu xool ak madame Ndiaye ñooñu xam ne suñu génnee ak seen métier ñu mun leen insérer ñoom tamit à travers la convention état employeur